suratul kahf ajuma ju nekk jàng suratul kahf guddi ajuma jàng suratul kahf bëccëgu ajuma jàng fukki aaya yu njëkk ci suratul kahf jàng fukki aaya yu mujj ci suratul kahf ak eh, dige yi mu ci dige wax na ne ku jàng suratul kahf ajuma am na ci yenn xadiis yi sax yu indiwul juma mu ne yàlla dina la defal leer ci diggante ñaari ajjuma yi am na ci xadiis yàlla dina la defal leer ci fi nga ko jàngee ba néegu yàlla ba mu yàlla baytul atiq yàlla dina la defal leer diggante fi nga nekk ba asamaan wax na moom yonentu sallallahu alayhi wa ne ku jàng suuratul kaaf leer yi la yépp yàlla dina la ko defal est-ce que duñu laaj kon lan moo particulier ci suuratul kaaf wax na ne sax ku jàng fukki aay sama borom dina la musal ci ayu dajjal moo xam yu njëkk yi la moo xam yu mujj bu nekk riwaaye ñëw na ci waaye mel na ni suuratul kaaf ku mu musalul ci àdduna ci sa dund bu dajjal feeñoon it kaafu du la musal ndax kaafu mooy firi xunt bokk la xaar tuddee nañ ko suratul kaaf ngir xisa yi ñooñ kaaf asxaabul kaaf eh, lii solo loolu mooy yonentu sallallahu alayhi wa bi mu feeñee waa Makka dañu def lu nekk pour xeex ko ba mu mujj ñu ne liy pexe mooy nañu dem Yaxriba ndax axbaarul yahud ya fa nekk mën nañ ñu génde Quraysh yónni ñaari noon yi gën a mag ci nooni yonent bi sallallahu alayhi wa ci mag kenn ki mi ngi tudd a nadr nadr ibn al xaaris nga xam ne bañ yonentu jaraloon na ko tukki Sham ngir jàngi nari mag ñu njëkk ña ngir mën a compé compétir ak yonentu sallallahu alayhi wa bu ñu bisee ba mu réussirul mu mujj di fay eh, xale yu jigéen yi nekk biir këram ngir ñuy séduire góor yi pour que xale bu góor bu bëgg dem ci yonantu mu indi la ci jaam yi waaw seet xale yu jigéen yi gën a rafet màkk mu koy mu leen di utiliser nadar moomu lañu ñu ak Uqba ibn Abi Muayt xam ne ñoom bokkoon nañ min ashaddi aadaai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam adaawa ñu yónni leen ilaa yàlla atte na leen laaj leen ñetti question yi xale yi nga xam ne ñoo doon daw ngir dawale seen diine ngir rawale seen diine ak waa nga xam ne moom la yàlla may mu wër àdduna ak soloy ruux ba ñu ñëwee laaj ko mu ne ba suba fàtte wax incha allah yàlla yit tee wax fukki fan ak juróom seydina jibril yegg si mu ne ko jibril ba nga ma di maa la namm mu ne ko wallahi mala gën namm wante man jaam laa rek bu ñuy digal suñ ma yebalee ma ñëw suñ ma yebalul ma toog وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ونكو تسامو برم نكت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله بملا دلت مك كان دينغا دف دار السبا تفك وغلو إن شاء الله جوكو ريبونس تي أصحاب الكهف جوكو ريبونس تي كينغا خامني moo daan wër moom la yàlla jagleel mu wër àdduna muy Zul Qarnayni xam nga suñu borom ñaari jullit la mosa may ñu moom suuf ñaari yéeféer la mosa jagleel ñu moom suuf xoolal sama borom mi ngi ñuy wane àdduna du dara ndax lim ci may jullit la ci may yéeféer te boo moytuwul sax la mu may yéeféer ëpp ndax yéeféer bi sañ na lu ne te jullit sañul lu ne ذو القرنين أكينتي على سليمان نيوم مصوم ممسوف دي جلد بمجيخ بكو نيوكا كان بخت النصر أك نمرود ابن كنعان نيوم مصوم ممسوف بمجيخ بكو نيوكا كان تيفر ساروينك لو تخمو اكستراوردينير أه donte alxuraan saaram yépp extraordinaire mooy ñeenti yi nga xam ne ñooy fitna yi gën a mën a fitnaal wala ñooy major fitan ci àdduna yi nga xam ne ku ci mucc rek mucc ñeenti yooyu la saar bi di jàngale fitna bu ci nekk lana koy indi nan lañuy ñuy xamee ne dal na kim dal ak la koy dindi fitna bu njëkk bi mooy fitna diine nga nekk ci jamono ñépp bëgg bon yow nga bëgg baax nga nekk ci jamono ñépp bëgg bon te yow nga war a baax asxaabul kahf ñu ngi ci jamono buur bi di yéeféer yamu ca waaye mu ne nañ ko jaamu bàyyi yàlla te ñoom fa suñu yéene jaamu ko dul yàlla wax ñu coono gaju daj waaye ba ñu jógee rek ñaan la ñu njëkkee am xasibta anna asxaab alkahfi walraqib kaanu min ayatina ajaba ida walfityatu ila alkahf fa qaalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rachada moo tax yonentu ne ñaan mooy nga nay jullit ñaan mooy yuq jaamu yàlla ñaan mooy jaamu yàlla addua silahul mumin addua muxul ibada addua huwa al ibada sallallahu ala rasulillahi alayhi salatu wassalam ñaan ñaareel bi mooy looy def nga organiser ko gis nga mbaax lu mu baax baax soo ko organisé wu yàlla seetaan la ñoom dañu organisé wu ànd en groupe def stratégie diisoo ku nekk joxe xalaat ñu tànn xalaat ba ca gën ñu def ko lan lañ wax yéen haulaay qawmuna ittaxadu min dunihi aliha لولا ياتون عليهم بسلطان بين ني وقتان نيو ديف نك فهو الى الكهف يشر لكم ربكم من رحمته عند اك نيو باخ خات فين عند اك نيو باخ خات فين معنا سو نيكي سي جامونو بوغا خامني فيب الكو ñepp bëgg def safaan te yow kese nga bëgg def mbax da ngay sonn da ngay seet ci ñi tuuti tuuti ñi nga xam ne bëgg nañoo baax nga ànd ak ñoom loolu lañu def set ñu tuuti tuuti yonentu sallallahu alayhi wasallam sallam mu ne wax ma rek ki ngay àndal ma wax la yow yaay kan waaw al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuxaalil ah kon nag rufqa saaliha nañu ci suñu borom ñaan wut àndandoo yu baax ndax nit loo bëgg bëgg baax baax boo amul àndandoo yu baax baax te la te loo baax baax yi tamit soo amee àndandoo yu bon boo moytuwul musiba mu leen di dal wàccaale ci sa kaw gis nga Seydina Muusa ni mu baaxee mook Seydina Haarun wante àndandoo yu bon ya ñu amoon way waa banoo Israil tax na nattu ngël mandega ñu ne ca arbaina sana sa yasihuna fil ardi terewul ñoom ñu nga nekk ak ñoom nit lu mu bon bon tamit bu amee ànd yu baax ànd gu baax ga jëriñ ko ndax mën na ak sëlwaa bi yàlla doon wàccee ci ñoom ak ker ak niir yi mu doon wàccee ci ñoom ak fexe ba seen yére du tilim seen yaram du salte ñu ko amee ci barke Moussa ak Seydina Haroun barke Seydina Moussa ak barke Seydina Haroun la nattu diine mooy nattu bi nga xam ne moo gën a mëg te moo gën a rëy te moo gën a grave moo tax yàlla njëkkee ko ida e, naka la ko woykat bi waxee e, ida al imaanu daa fala amaana wala dunia liman la yaxya diina waaw ngëm su manqué walla mu sànku rekk nit perdre sécurité intérieure am dootu ko amati dootul dootul dalati dootul stable yàlla wax ñu xaat ci njëlbeenu téere bi am importance gi ngëm am importance moo tax mu ubbee ko tawxid alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab mu ubbee ko tawxid xam nga juróomi saar ci alquran ñoom la yàlla ubbee alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin muy fatiha bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi xalaqa alsamawati wal ard gis nga rabbil alamin fatiha rabbil alamin la wax tudd na yàlla tudd mbindeef lan am xalaqa samawati wal ard tudd na yàlla tudd mbindeef saba alhamdulillahi alladi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard tudd na yàlla tudd mbindeef fatiri alhamdulillahi fatiri samawati wal ard tudd na yàlla tudd mbindeef waaye saar bi nag dafa particulier moom ci côté boobu mooy yàlla dafa tudd boppam tudd kaddoom gi mu wàcce wante nag mu wan ñu ci biir tudd boppam ak tudd téere bi cofeel gi mu am ci soppeem bii di yonantu sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladi ala abdihi alkitab gis nga anzala alkitaba ala abdihi doon na baax grammaticalement waaye cofeel gi mu am ci yonantu lañu ñu bëgg a woon mu doxalee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam diggante wàccee gi muy xéwal gi gën a mag ci xéwal yi xéewal gi nga xam ne moom la wàccee muy kàddoom mu doxale ci diggante bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi mu jox ko yi tamit maqaama mi gën a mag muy maqaama ubudiya waxul anzala ala rasulihi waxul anzala ala habibihi waxul anzala ala nabiyihi waaye anzala ala abdihi la wax ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na ana sayyidu waladi aadama wala faxra maay sangu doomu aadama yi mu ne waaye loolu sama tiitar ndax bu nekkee sang rek muy nekk ak ñun te tiitaram mooy mu nekk ak yàlla te bu nekkee yàlla nekk abd moo tax maqaamaam yi gën a mag yépp yàlla abdu la ko fay tuddee bi mu koy ràññaanee mu ne subhaanalladi asra bi abdihi bi muy wàccee ci moom alquran mu ne alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab bi mu koy wax na waxi lim koy ko yónni wa innahu lamma qaama abdullahi bi mu demee ca حضرة القرب حضرة الدناء فتدلى مكيوتا لكن خمو المنفى أوحى إلى عبده ما أوحى كن عبودية ولا عبودته موي مقام ميغنا كاوي مملكة الله جخفي ñaarel bi bi mu indee tawxid ni mu baaxee rek mu wone lu safaanu tawxid ni mu bone kaburat يقولون إلا كذبا وخين وينك من كي جنجو دانجي بوي لامين دانجرو دانجي بينك كي لامين موي لو نيت دي واخ نكو خام يونت نينا نيت دينا واخ بن كادو نيت دينا واخ بن كادو نينا غير غرافيتي كادو با سما بروم سبحانه وتعالى دينوكو كب تي سبب كادو با تي سفارا لو مات جوروم نيار فكي نويت te mu ne boo demee moo tax kàddu lu mët bàyyi xel la waaw ah, di nga gis nit toog ci eh, gannaaw écran gis benn post mu bind lu ko neex te bu tase woon nag ki mu koy bind du ñemee xool ko kule di nga gis nit ñu wane kenn ci télé bi mu def commentaire bu ko neex dinga jis nit kenn romb ko mu wax lu ko neex te du ci sax ba ay xel te yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na riba li ñuy garaaw garaaw am na lu leen gën a garaaw mooy ribaa boo xam ne dafa aju ci deru nit mu ne ndax ribaa mooy nit ku nga xam ne jëfandikoo na ci alal ci façon bu ko yàlla digalewut moo xam muy ribal fadli wala ribal nasiya mu ne riba nag dafa garaaw garaaw ba boo doon xool bakkaar yi riba bi ci gën tuuti mi ngi mel ni nit kuy tëdd ak yaayam ci gravité mu ne ba ca gën a mag mi ngi tollook gor buy tudd deru beneen gor ni moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax kon nag kaburat kalimatan taxruj min afwahim xaat mi ngi ñuy jàngal kàddu rawatina nag kàddu ga bu jeme ci yàlla wa moo taxit noo mun mel bul foog ni mukk di nga mucc ndax la raxata fi dunya wala najata min nas wallahi law saaxaba al insaanu jibrila laa yaslamu al من min min qaalin wa قيل qiila qad qiila fi تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قالوا بأن له ابنا وصاحبة زورا عليه هذا ما مقالهم في الله خالقهم فكيف إن قيل فينا بعض ما قيل نومنا وحرق جوحتي نجم يالا لن يبايول بمو وحنا لن يوخ أبنا دونك فتنة بنجك بي موي فتنة باس باس ànd yu bon ak nekk ci environnement bu adéquat wul moo koy indi moo tax yonentu ne fa abawaahu yu hawwidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaani wante ñëpp ci lislaam lañ juttu ndax inna diina inda allahi lislaam ah nuux moo waxoon wa umirtu an akuna min almuslimin muusa wax wa ala allahi fa tawakkalu in kuntum muslimin إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين موك دوم جي إسماعيل وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سيدنا عيسى أك حواريوني فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ينتي على يوسف توفنا توفني مسلما والحقني بالصالح ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين لولا لا وخون مم ينت يالا سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين أنت يعني يا يعقوب يعقوب أقدومي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون يلا سخني يرنتي يب مالن دفنو أي جلت إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور yaxkumu biha annabiyuun alladina aslamu annabiyuun alladina aslamu naka noonu képp koo xam ne diine woo nga lu dul lislaam yàlla ne du ko nangu wa man yabtagi gayra lislaami diinan falan yuqbala minhu yonent yëpp ci loolu lañ newoon loolu la saar wi di njëkk a saxal ci xolu nit ki nit ki su pas-pasam wéree lu ñëwati rek baax waaye su pas-pasam wérut dara du baax xale yi tamit balaa ñoo laqatu ci xuntu wa laqatu nañ ci xuntu wu gën a mag wi te mooy yàlla subhanahu wa taala kon nag saar bi lim lay njëkk a jàngal mooy pas-pas ñaareel bi li saar bi di jàngale ba ñu mën ci def attention muy fitnaay alal ñaar ñu yàlla jox alal kenn ki di ci nekkal yàlla kenn ki di ci bonal ki nga xam ne moo ci doon nekkal yàlla yàlla natt ko amatul kële moom yàlla def ko listidraaj alal ja eh, yokk mu foog ne eh, liggéeyu ndeyam la wala mu foog ne ngóoram la gis nga noo mën a mel effort yoo mën a def diplôme yoo mën a am ba am dara bul foog ne effort yàlla bul foog ne diplôme yalla ndax li nga am ci diplôme lu muy bari bari am na ku am diplôme yu toll noonu mbaa yu ko ëpp te amul li nga am am na ku am ëpp li nga am te amul diplôme yi nga am am na ku la ëppalee effort te amul li nga am am na ëppale effort mu am li ëpp li nga am kon nag dangay ngay sabablu waaye bul jàpp mukk ne sabab yi moo lay may yàlla xereñam mooy jaar ci sabab pour maye moom la imaam Junayd doon wax ne suñu xam-xam bi wut du ko maye de waaye yàlla du ko jox ko wutut yàlla boole ñaar ñii kenn ki bew ki ci des di ko laay biir yàlla ñuy wan tamit ne ñaar bu ñu àndee ba kenn juum au lieu ñuy dem ci mbedd mi di xasante waaye dinañu fexe waxtaan ak kooku delloo si ko te waxtaan wi dafa war a am uslub uslub bi mooy dafa war a am teggin Seydina Moussa alayhi mook moog Seydina Haroun yàlla ngi leen yónni ci ki gën a bew ci kaw suuf muy Firawn mi ngi leen yónni ci ki gën a bew ci kaw suuf bay woote ne yàlla la ana rabbukumul aala xanaa dafa waroon wax ne dem leen ngeen yàq ko lu war ni xeme lu mel ni xeme bu doon wolof waaye mu ne leen fa quulaa lahu qawlan layyinan laallahu yatadakkaru aw yaxsha na ngeen fexe ba nooyal seen wax ci kanamam xëy na loolu def ci moom tadakkur xëy na loolu def ci moom xashiya ah ñun nag buñ jógee ku nekk ñu yóbbu la safara te safara moom kër yàlla la du kër keneen nag boo defee alal dana jay nit ba mu yàqal ko boppam ba mu yàqal ko mbokkam ba mu yàqal ko boromam ba mu yàqal ko doxalinam yàqal ko diineem yàlla nag wax ñu problème mu alal wadrib lahum mahala rajulayn jaalna li ahadihima jannatayn min anhab wa xafafnahuma bi naxl wa jaalna baynahuma zaraan kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay wa fajjarnaa xilaalahuma naharan waxal ñu alal ji ko jox ni mu rafete ak ni mu bare nga war a gis nga ne lu yàlla ba sant ko waaye nga jis ne yow yaa ko defaral sa bopp yaa ko moomal sa bopp innama utiituhu ala ilmin waxoon li mako ko ñaq waaw bés boo jàppee ne ya ñaq sa alal rek xamal ne yaa xaaroon ay cheikh ngeen xamal ne yaa ay cheikh ngeen looloo tax yàlla du nangu mukk ku gis boppam waaw du ko nangu waaw iblis ba mu jisee boppam ca la ko yàlla sànni firawn ba mu jisee boppam ca la ko yàlla sànni xaarun ba mu jisee boppam ca la ko yàlla sànni moo tax bul gis sa bopp mukk ci dara nag ah waaw allaha qul wa daril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan buluga kamali ah yàlla it def ba ca gën ne ko gannaaw bi nga amee sant loo ma ma écrasé ko benn yoon mu jàngal ñu it lu am solo mooy loo gis rek xamal ne coobareem la walaw laa iz daxalta jannataka qulta ma sha allah moo tax soo gisee ku am dara tuddal yàlla te nga ñaanal ko yàlla mu barkeel ko ndax su fekkee danga nga ko yéene lu bon a ah, ngay cheikhu iblis ndax ba mu gisee aadama am lu baax mënul ko ko yéene ndax pour moom moo ko fi njëkk moo ko gën mérité yàlla la ko kii nag dafa ni ko bi nga gisee sa alal ji lu tere nga tudd yàlla waaw dañ ko nettali benn waay bu gis euh, kuy sangu ci dex gi yaram waa ngi rafet mu ne ah, waaye ndaw yaram wu rafet ndeke gémmiñ ne ko waajal lab biñ ko waxe yonentu sallallahu alayhi wasallam mune lana tax kenn ci yeen di ray mbokam bu ngeen gisati lu len yem ci sen mbokk na ngeen ko ñaanal barke motax mag ni fo len gis ñu nan tabarakallah tabarakallah bu dee sax ramz la ya bi yalla dina ko wa lu ñu gis rek tuddu barke ñaan ca loolu mo jaadu fo gisee sa mbok ñaanal ko ak lu ko yalla may parce que ñak ko ko yene du tax mu ñàkk ko te day tax yàlla jëppi la ndax alxasadu yakulul xasanaat kama taakulu naaru lxatab wa min charri xaasidin ida xasad parce que ki añaan yàlla lay xeexal xeexalu la ki mu añaane waaw mbokk mi nag laaye ko biir wante déggul laaye biir alal ji tax na mu fok ne duut kim doon te dafay am di nga gis nit du am dara mu nekk ay mbokkam yàlla xëy jox ko dara rek mu surclassé wu surclassé wu waaw waaw ah, seeti yeneen tabarakallahu àndandoo ak yeneen nangam yàlla dikk ah, mu ne ko ba nga gisee alal ji na nga tudd yàlla mu ne ko lii yàlla mi la ko jox mën na ko xëy nangu ah, moo tax eh, loolu lu mat a bàyyi xel la loo am rek am na ko amoon lu ko ëpp te ñàkk na looy wut rek am na ko am lu ko ëpp te mu ngi ne ngéej génn ci ndax feebar bu ko dal mu wér ci ndax problème bu ko dal mu génn ca waaw wolof mu ne sax ko ñee ñëwul boppam kon yow yaa tax yàlla bind alal bu la alal beewloo yaa tax yàlla bind alal bu la alal beewloo nga nekk nitu mesure lu nekk rek nga nekk ca nga am ca mesure bu la alal beewloo waaw wala tansa nasibaka min ad-dunya waaye nag wa ahsin kama ahsana allahu ilayk saar wi sax dafa jàngale mesure ba bat bi nga xam ne mooy nekk moo nekk ci digg alquran ci saar wi la nekk wala yatalattaf te bat bi mi ngi jàngale mesure mi ngi jàngale lu ne ndànk-ndànk moo koy réglé waaw wala yatalattaf soo doon jàng alquran nga compté bat yi from fatiha baqara ali imran nisa maida am la arab lan landufaal tawba yunus hud yusuf raad ibrahim xijri naxli lisra kaf bat boobu nga jógee fa jëm Maryam Taaha lan bi ay xajji muminin ila axiri baat bi moo nekk ci digg alquran exactement wala yatalattaf loolu it yàlla mi ngi jàngale ci kii jàng saar wi ne ko war nga nekk nitu mesure kon saar wi loolu la ñuy jàngal nan la ñuy defee euh, ba am solution ci problème mu alal ak ni muy engagé nit yi yàlla ne xanaa rek nga am nga xam lanay réalité àdduna nga xam lu réalité àdduna mu ne àdduna mi ngi mel ni rek ndox mu joge asamaan ñëw jaxasoog gàncax gi màgg ak moom rafet waaye nga xëy rek mu wow ngelaw fekk ko fa yóbbu kama in anzalnaahu min sama fa xtalata bihi nabatu l ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah nga xam tamit ni alal ak njaboot taaru àdduna la te yonentu wax nañu ne àdduna boo fi ne melal ni étranger wala kuy transité kun fi dunia ka annaka garibun aw abidu sabil waaw la waxoon sayidna abdullah ibnu omar gis nga mi ngi jàngal leneen mooy nit li bëgg-bëgg njaboot bëri na bu topp alal taxee du yar sax njabootam moo nga gis toujours alquran di tudd alal soko tuddu njabot al malu wal banuun waxul banuna wal inna ma amwaalukum wa auladukum fitna alal dina tax nit du yar njabotam te bo topé sa alal ba lo sa njabot di nga ñak alal ci ñak njabot ci parce que bo fi nekatul rek amatuloo te nit bu njabotam melé nenn ni do do fa nekati do do fa nekati Ah, bari na tay ko am lulul jeex te mënul dara ci njabootam yalla nañ ci yàlla boole musal ah, njaboot gi it nga teg leen fi la yalla wax ne nga teg leen parce que boo participer wul ci invitation ci process bi yalla teg ah njaboot gi dootul nekk sa njaboot wax bu leen yalla ñàkkee rek nga ñàkk leen wax ah, waaw xale bi bu wax ah non non ko Quran mënu ko nangam dafa war a dem l'école dafa war dem l'école après na dem lekkool waaye bu mu fàtte nag alquran alquran na jiitu ci moom waaw gis nga yonentu sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa fexe ba waa këram jàngaluñ ko ndax dafa bëgg alquran nekk jiw wu jiitu ci moom moo tax sa doom na alquran jiitu ci moom te bul nangu kenn jàngalal la sa doom fatiha fatiha na ko jàngalal sa doom li tax mooy chaque jour xale bi dina ko tari ba ba muy faatu ci julleem at least 17 times dina ko tëri 17 fois ak lu mu tuuti tuuti te saa yu ko tëree nag nga am li ñuy wax eh, bonus waaw ah. ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam nee ku yoonal yon wu baax yàlla jox la yool ba jox la yoolu ku ko defati bu toll ni bam leen jox te du wàññi ci seen yool ñoom dara wax na ne sax kii tegtalee jëm ci yiw moo ki ko defa yem waaw addallu ala alxayri ka faayili kon ñaareelu point bi nga xam ne saar wi mi ñu koy jàngal muy fitnatul maal yi koy indi ay gaza gazair lay doon rek maanaam euh, ngeen baal ma garaïs lay doon rek waaye ku am jikko alal du la derive from allah tabaraka wa ndax da ngay gis ne ah du dara parce que taxul la fi indi fii la yem te yow li la fi indi mooy nga jaamu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun alal nag yàlla ne maa ko gàddu maa ko gàddu wa fi samaai risqukum wa ma tuadun fa wa rabbi samaai wal sax boole ci innahu la xaqum mithla ma annakum tantiqun mu ne nag ngeen ngeen ngeen moytu parce que am na koo xam ne yitteem yépp mooy indi fitnaay mbon ba ngeen bàyyi seen diine indi fitnaay alal ba ngeen bàyyi seen diine ndax loolu la waatoon ba mu bañee sujootal aadam moo tax mu indi iblis ak bañ nga mu bañoon sujootal aadama ci digg boobu id qulna lil malaikati sujudu li aadama fa sajadu illa iblis kaana min kon ñeenti fitna yu mag yi la saar wi di discuter benn mooy fitna diine boo ci muccee mucc nga ci yépp ñaareel bi mooy fitna alal bu la yàqee yàqaale sa diine du ko fa bàyyi ñetteel bi mooy fitnay xam-xam yàlla dinañu ko jàngal ci histoire Seydina Moussa ak Seydina Khidr alayhi salaam ñeenteel bi mooy fitnay pouvoir yàlla dinañu ko jàngal ci soloy Seydina Dul Qarnayn waaye mel na ni waxtu wi mi ngi ñëw dëpp kon suñu waxtaan bi ñuy ñëwaat ak yéen une réflexion sur les secrets du Coran, sur la sourate Al-Kahf Mingi ci parce que xam-xam ak information beaucoup ndax xam-xam tout. bu dañ dan tok ci jakk ji wër sëriñ bi ci am humilité ak xam-xam nak buñ ci l'école bu ko defee ñëpp rey góor ga biñ ko laajee ne ko nag ñu décrire lanay université mu ne université al jamia madrasatun tadxuluha jahilan mutawaadian wa taxruju minha jahilan mutakabiran mu ne université école la booy dugg réer gooy duggee réer gu ànd ak euh, toroxlu mu ne nga génnee fa ak réer gu ànd ak parce que dañ la programme ngay def examen di admis di def examen di admis jox la ne la yow yow nangam dara parce que jàngoo pour xam da nga rek pour admis la euh, dañu toll ci jamono euh, soxla nga utiliser université waye waru le parce que niñ ko organiser pour des raisons à la fois politiques économique euh, ak loo ko mën a tuddee tabaarakallah yàlla dina dinañu jàngal xam-xam yi nga xam ne ñoo jara xam ak ni ñuy wutee xam-xam ak crise yi xam mën a jox ki ki ki xam ak fitna yi nga xam ne moo nekk ci euh, nit ki ba mën maanaam moo mën a fitnaal nit ki ba du jëriñoo xam-xamam wala du am xam-xam ci kim ko bëgg a euh, jàngee yàlla dinañu ko wan ci jëmmi sayidna musa ak al alxidra alayhim assalaam ak pouvoir tamit nan lañ koy amé ak nan lañ koy gérer ak yanay yàq nit ki ci biir pouvoir parce que yàlla nit ki rek moo ko ñor nit ki rek rek rek rek moo ko ñor waaye nit ki li muy ñor ñor yàlla pour boppam la yàlla dafa bindal nit lépp huwa alladi xalaqa lakum ma fi ardi jamian ba pare nag mu jël nit bind ko pour boppam wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun sa nurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu alxaq sa nurihim ayatina fi l afaq wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu alxaq kon nag euh, ñu bàyyi xel ci bu ñuy jàngati saar wi yonentu sallallahu alayhi wax ñu ngëneel yu bari yi yëpp nekk ci ñu bàyyi xel ci lana tax mu wax ko ndax yonentu lu wax rek am na lu tax dëgg la ku ko jàng di nga am ngëneel yëpp waaye ku jàng lii tax nit a ñàkk diine ak lii tax mu mën ko conserver jàng lii tax alal mën a fitnaal nit ak lii tax mu am solution ci loolu jàng li tax xam-xam mën a nekk fitna ak li ko ci musal jàng liy tax pouvoir mën a nekk fitna ak li ci nit musal nit leer dugg na la te dootu la génnati noflaay dugg na la te dootu la génnati xam dugg na la te dootu la génnati yow dootu amati coono parce bu buñ naan àdduna coono fi am dafay fekk borom xolam yàlla newu fa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب متحصار بي يال جيمو نينكو ويتل تجوكو لب جيمو أبي مملة جيد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد دينا نيو وانتمي تي جيخي تساروي ني خلات خلات تميت منو لينا جيخال نجرين جي نقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا نيان سوني بارا مدفرا نيو ديغ تي سوني جوتاي بي دي باذن الله تعالى دي وقتاني فتنه العلم وفتنه السلطه في سوره الكهف واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته